mbënd bi nekk na li nga xamante ni sonaloon na lool waa Kër Massar benn at si ginnaaw nekkoon na lu metti ba ñëpp jot ci ndax askan wa amatuñu woon fu ñu jaar te dem ak dikk bi metti woon na lool ba waraloon ñu def ay canalisation ngir aar askan wi jamono yi nag dafa mel ni waa Aïnoumady ak Sotrac am nañu ay jafe-jafe ba waral yenn ci oto yi nangootuñu yàpp jëm Sotrac loolu moo waraloon ñu def ab taxaw seetlu jëmale ko ci yooyu le mbir seeti nañ askan way yeewoo ca ay numaar yi kër masaar sekk nañ ak ñoom laaj ak tontu nañ teewlu kàddu yi ñenn ci askan wi yëkkati asalaamaaleykum man bii mboy laa tudd fii cité di la waaw ndox mi ndox mi daal ñun dañoo toggutoo ba gis ko muy ball nii waaw ñun mënuñu wax fan la jóge mais dañoo toggutoo ba gis ko muy ball fii waaw ne nañ canal yi ñu fatt ba pare lax ne nañ daal mais ñu fukkee daal jaaxal nañu trop sonal nañu te dafa am xet waaw dafa xeeñ ñun ñuy toog fii di jaay la gën a kii parce que oto yi risque la sax ndax da gis oto bu chargé ba fees ñëw doo xam ne fii kàmb la rës ah. chargé bi xaw a def nii loolu boo de suñ ko fu ñu jëm ah. léeg-léeg borom ciment yi saret yi seen ciment yi fii la ñoom maa leen di may saako ñuy an seen eh, saako eh, kii ciment yi di defaraat ci kaw saret bi métti na trop vraiment métti na moom te li bu ko fi bi fekkee ah dina gën a métti trop sax waaw dina gën a metti te ñuy ñaan yàlla balaa nawet bi balaa ndox a wàcc ñu defaral ñu ko sëkk ko defal ko ba mu baax waaw parce que non seulement amul hygiène ba pare te am na danger waaw mais moom ñëw dimbaliñ te yàlla tax dimbale ko dimbaliñ ndax ñu ñu dëkk si koñ bi suñu foos yi xam nga cataplan bi dafa diis bu dëggee ci foos yi nekk si bii day day toj lu ci bëri moo moo waral foos yi toj noonu ba ndox yi kii nii da bëri si koñ bi encore oto yi tamit mu mu def ko ndax euh, sécurité oto yi waaw parce que ak élève yi dafa dafa jege école élèves dañuy wàcc di dem di def ay va et vient dañu gis ñoo xamante ne dañuy dem bay jéggi oto joor jaar fee parce que nooy neex la ñuy jaaree waaw nooy neex la ñuy fële parce que amul yoon bu direct waaw am amul am na danger daal am na danger trop trop trop. ñu déglu kàddu yi waa ji yëkkati ngir xam fan la ndox ma jóge ndaw bii di yeewoo ca ay numaadi sànni na ay kàddu kii di meeru Kër Massar. asalaamaaleykum maa ngi siyaar bu baax a baax man Cheikh lañ may woowee Cheikh Faye si koñ bi ma cité ay numaadi waaw cité bi cité ko waaw waaw. yaakaar naa ne maanaam maanaam ndox mi lu ko fi andi maanaam maanaam canalisation la rek manque de canalisation parce que boo xoolee canal dafa bouché boo xoolee nawetu daaw la gënoon métti sax waaw nawetu daaw boo xoolee yaakaar naa ndox bi ak ak maanaam ak maanaam tali bi nu mel nii boo xoolee cause bi nawetu daaw la. waaw ah, ba léegi nii xam su ma juumul tali bi depuis 2016 la depuis 2016 mais maanaam maanaam nit ki boo defaree tali defoo ko ay pavage mënut a mënut a mënut a sotti quoi waaw mënut a sotti parce que tamit waaw yaakaar naa ne tamit maire bi tamit jëruñu dara maire Kër Masar mu jëruñu dara waaw turu maire fi am rek turu maire nii rek mais xamuñu ko mosuñu koo gis ah maanaam doxul ci maanaam social quoi doxul ci dara social waaw wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla koñam boo fa duggee koñam boo a salté moo gën a bon moo gën a tilim ko doo defar koño doo defar koñ jàmbur loolu mënta ne moom barki démb Njaay fi la fi jaar barki démb fi la jaar dugg si pax yi ba génnaat kon loolu kon loolu maanaam kon maanaam firnde la quoi si moom waaw parce que yaakaar naa ne ki jaar sa koñ gis sa koñ nu mel kon loolu firnde la waaw wala déet ah waaw noonu la demee ñu tamit ñun ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi jëm nañ si lu ne waaw des fois ñu am ko fi des fois ñu def ay set setal xam nga mooy loolu noonu quoi mais tamit mais tamit ñun ñun tamit bu ñu jàppale suñu bopp tamit maanaam fekk tamit maire

maire moo ñu war a dimbale mu defaral ñu tali bi fii tali bi luñ ciy daj lu ne yàlla rek moo ko xam gis ngeen ni ñun suñu oto yi lu ne yàqu na ci oto yi oto yi sax ma matagul fii 10 ans oto yi yëpp yàqu nañu dañoo war a dimbali tali bi ñu defar ko oto yi mun foo dem normal comme ni ñuy demee ay jaxaay ñu mun koo demee Sotrac normal parce que instant chauffeur yi koo ci yëpp Sotrac sax du kontaan pour dem fa parce que lan moo tax tali bi moo baaxul su tali bi baaxoon dañ fay njëkkante dem parce que bu njëkk dañ fa doon dem li ñu am ci Sotrac mënuñu ko am fenn parce que fii dañ oto yi peut-être sotra moo ko indi mais bo gisee léegi mënutuñ ko am tali bi moo baaxul tali bi commencement entrée bi fii madame Ba ba Sotrac fële ci kii bi baaxul daaw sa daawuñ foon dem dañoo amoon ben instant daawuñ fa dem nañu dimbali ñu defal ñu tali bi ñu mun fa di demaat comme normal waaw. client yi ñoom ñi ngi ñaawlu anam ya fa jël oto Sotrac metti wee. Euh, Ablaye ci laa tudd dëkk euh, Kër Massar Sotrac moom day metti quoi pour am oto fii day difficile trop. waaw looloo tax quoi te yoon bi tamit dafa metti quoi moo tax gars yi di am problème quoi sama xalaat daal moo ñu defaraat fii quoi defaraat tali bi xam nga améliorer oto yi pour clients yi a dem nice quoi waaw day metti quoi pour nga am oto Sotrac temps bi moom mënu ma ko après dina yàgg trop gis nga tey nu mu demee nii ginnaaw ba ñu taaxirloo yooyu la kàddu jàpp nañ ne canalisation yi ñu defoon benn at ci ginnaaw moo toj ba waral foofu yépp am ndox ba oto yi nangootuñ fa jaar loolu nag tax na askanu Kër Massar sonn lool ndax ku ci bëgg dem Sotrac di nga jànkanteel ak ay jafe-jafe yu bari ñoom nag ñi ngi ñaan kii di meeru Kër Massar mu jóg ci ndax ñoom sonn nañ lool